yeeslu ci li nga xam ni moo doon aaday taalib bi murit joxe sa bopp boo toppee nit ba gisa toogu da ngay yeesluwaat benn ci doomam wala ci ay magam ay ay rakkam wala ci ay bokkam kër Sëñ Tuubaa nag moom koo fi fekk ci kaw lal bi rek mooy Sëñ Tuubaa waaw noonu rek alay maam Cheikh Ndaw moo ma ko maam ma ko wax 1966 géngi néew mu ne ma